statistique gu euh, TikTok parce qu'on on dit que euh, bi mu ko créé léegi téléchargé nañu ko par exemple sur euh, sur sur App Store. Mhm. lu tolloo un milliard un virgule soixante cinq milliards de fois téléchargé nañu application boobu. Mhm. ñu ne la si mois bi dina am huit cent millions d'utilisations huit cent millions d'utilisateurs yu utiliser TikTok en un mois donc ça veut dire que diffusion bi dafa large. Mhm. tey bàyyiwul benn continent Chine la jóge mais fi mu nekk nii wër na mi ngi si mi ngi si continent yëpp mi ngi si pays yëpp alors au Sénégal ñu ngi si depuis une année voire deux ans euh, mais euh, dañ ciy nemmeeku ni benn hypersexualisation. Mhm. boo xamante ne du des contenus vidéo lañ doon wax pour wane sa créativité euh, sa esprit boo xamante ne yow mën nga créer des choses voilà partager avec tes amis. foo fun pour le fun et tout ça mais on dañoo dem ba ñu nga xamante ni un hypersexualité boobu euh, deux problème prédateur yi dañ ciy nekk trois cyber euh, euh, criminels yi dañ ba tey dañ ciy dugg boo ñëwee si côté hypersexualité boobu ñu siy nemmeeku da nga ciy gis les les les filles qui sont malheureusement ñoom ñooy ëpp si ñuy utiliser loolu parce que certes yaanaa yoo xam ne dañuy def des vidéos fun des vidéos qui font rire qui voilà yoo xam ne ça te permet de déstresser mm-hmm. euh, ñu koy partager entre amis mm-hmm. sans arrière pensée mais yaanaa yoo xamante ne même bu ñuy def vidéo boo xam reetaan loo liñ ciy sol mm-hmm. yow boo koy seetaan leneen la lay njëkk xalaat loo bu fekkee ni ta ta ta benn esprit bu tordu donc yaana si si euh, application bi booy euh, inscrire normalement quand tu n'as pas 13 ans c'est inscription war warul jàll contexte boo juddoo avant 2006. Mm -hmm. après 2006 bon disons euh, sa inscription war ta jàll mais amul benn barrière boo xamante ne mën na mën na permettre loolu mën nga tricher en inscrivant mën nga am 12 ans ne 89 nga jur par exemple et ça passe. Mm -hmm. donc parce que y' a amul benn contrôle foofu mënuñ mënuñ contrôle bi mënut a egg foofu. alors euh, on se rend compte qu'en ce moment là il y a des enfants si application boobu qui ont 11 ans 12 ans ans. alors muy ñi ñuy woowee les pré-ados. Mhm. mais le danger fi mu situé mooy si pré ado yooyu mhm. ak si ados yi donc entre onze ans et seize ans ou voire dix-sept ans euh, danger bi ni si situé moom mooy déjà contenu yi ñuy gis yëpp dañuy war ne des filles mhm. des femmes yoo xamante ni euh, il ne s'habille pas bien elle ne s'habille pas bien autant pour moi ay euh, mini la sol sexy soutien-gorge wala des des des crop top comme comme. ay nuisettes sax si boppam ngay wax ay nuisettes donc yooyu yooyu rek la sol te yooyu rek la wane saa su ne boo xool buy défilé alors moom fil fil fil d'actualité loolu rek nga fay gis. loolu rek nga fay gis même image boobu mooy ñëw. Mm-hmm. alors image boobu di yàgg si bëtu gune gi. Mm-hmm. muy muy xale bu ndaw bu jigéen muy gis même image bi à un moment donné elle va se dire que ça c'est la norme lii mooy li normal. Mm-hmm. mooy li ñu war a def la la plupart du temps dañuy imiter des starlettes. Mhm. yoo xamante ni euh, showbiz bi la ñu nekk di utiliser voilà euh, donc y des images qu'on qu'on qu'on voit à l'écran mm -hmm. ces genres day day am benn vulgarité benn mhm. benn euh, sexualité boo xamante ni sa dérange et mm -hmm. de de de d'inciter ñi nga xamante ni mooy mooy ñi ñi gën a ndaw si ci ci gune yi yàq leen mhm. d'abord muy benn boo xamante ni si éducation xale bi sa pose problème muy euh, li nga xamante ne moom mooy euh, image yu ñuy gis mën nañ koy imiter. Mm-hmm. et tu fois même des gens yoo xamante ni dañu nekk mag nekk ak gune si vidéo yi filmer ko solloo ko loolu euh, fecc loo ko yenn fecc yi obscène yi. Mm-hmm. partagé ko. un autre problème est là loolu muy benn benn benn risque boo xamante ni mi ngi si mi ngi mi ngi ci TikTok donc à l'origine ki ko doon defar. xalaatam nekkul woon ci loolu on ne jette pas la probe sur li nga xamante ne moom mooy euh, l' application parce que am na avantage avantages y euh, euh, link qui se créent parce que li gën a doy waar mooy il suffit que ma suivre la mën naa la envoyer message direct quand je t'envoie message on entre en contact on peut discuter xamoo sama âge xaw ma sa âge mm-hmm. tu peux avoir par exemple 13 man ma nekk quelqu'un qui a quarante ans cinquante ans parce que les pédophiles dañuy puise wala dañuy euh, napp si je peux le dire si application yu mel noonu si plateforme yu mel noonu parce que boo xoolee euh, y a une plateforme qui s'appelle Kik qui est très utilisée par les pédophiles Kik dañ koy application messager la bu ñuy nekk si smartphone yi mhm. dañ koy utiliser lu bëri ngir euh, jege ndaw ñi ñi fa nekk la majeure partie ñi ngi si TikTok alors te li ñu indi TikTok nag mooy gën a jege ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñoom ñooy euh, ndaw ñooñu euh, ngir mën na am ak ñoom contact. voilà essayer de de ak ñoom parce que euh, dafa am benn benn benn étude boo xamante ni y a un youtubeur qui l'a qui l'a fait. Mhm. qui s'appelle le roi des rats. Mhm. donc ci étude bi dalay wan d'abord âge bi nga xamante ni ñi ngi ci TikTok te waruñ see nekk. Mhm. muy déjà moins de treize ans il y a deux deux deux jeunes filles mhm. euh, du ma ne jeunes filles c'est des enfants yoo xamante ni euh, c'est des c'est des françaises mhm. kenn ki onze ans la am kenn ki treize ans la am euh, kenn ki am na un million sept cent mille abonnés à onze ans l'autre à onze millions d'abonnés à treize ans imagine-toi enfant bu am treize ans ay jigéen mhm. am onze millions d'abonnés les vidéos qu'elle partage onze millions yi déjà dañ koy gis. Hmm. deux am nañ possibilité télécharger ko. trois am nañ possibilité partager waat ko. Hmm. parce que mooy image yi ñuy gisaat sur sur sur YouTube pour am ay vues. autre chose ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñoo lay suivre am nañ possibilité commenter say say euh, say say say vidéo commentaire yooyu pour un enfant par exemple à chaque fois euh, que tu lis les commentaires. li lay njëkk a mooy ay mots yoo xamante ni daf day day vulgaire mhm. dans corps de rêve ce genre de truc nga koy wax un enfant de 13 an parce que noonu noonu lay wane mhm. léegi yow moom dans sa tête yow yaa ngi travaillé yaa ngi def leen loo xamante ni euh, bokkul ci li nga xamante moom mooy li gën ci moom psychologiquement et deux si commentaires yooyu des fois aussi on voit les yoo xamante ni day c'est des commentaires moqueurs ngir euh, saboter ki nga mhm. xamante ni moom mooy ki def vidéo bi enfant boo xamante ni construction la nekk mu euh, genre message bu koy jot plus souvent à un moment donné day dem benn am perte am estime de soi am mm. perte confiance en soi si construction euh, dina am lu bëri loo xamante ni dina ko si wàññi alors muy des dangers yoo xamante ni am na ci ndaw yi yoo xamante ni yu bëri dañ koy rencontrer euh, ci plateforme boobu di di TikTok mm. malgré que y a des y avantages parce que avantage yi moom mooy yiñ si daan nemmeeku muy euh, les les les vidéos playback nga xamante ne moom moo ko tax a judd vidéo playback daan nañ ci détecter ay talent parce que y des contacts qui qui se mhm. parce que loolu moom moo doon moo doon li nga xamante ne moom mooy euh, li ko tax a judd alors 800 millions je répète ce parce que c'est important 800 mhm. millions d'utilisateurs par mois tu laisses ton enfant dans ce cet écosystème là nga xamante ne euh, c'est partout dans le monde xamoo kan ak mooy kan te yow yaa koy utiliser ak moom le plus les enfants les parents le font y en a qui le font bu fekkee ne yow tu ne peux pas contrôler cet enfant man ce que je dis ce n'est pas les leur interdire ñu dem ci TikTok en tout cas s'ils ont euh, plus de treize ans y pas d'interdiction foofu warul waroo leen interdire mais tu les accompagnes parce que accompagnement boobu moom mooy tax parce que boo leen mën nga leen ko tere mais voilà dañuy génn xamoo xam xamoo nuñ koy utiliser. bu fekkee eggaguñ 13 ans nag strictement interdire leen ko. parce que amaguñ benn maturité boo xamante ni mën nga leen expliquer sax loo xamante dañ koy dañ koy jàpp carrément alors. très à partir de 13 ans yow tu euh, tu li nga war a def moom mooy nga leen di accompagner accompagnement bokk na si benn expliquer leen ce qui se la réalité bi nga xam ne moom moo nekk ci internet yemul rek ci application TikTok bi mais mhm. application yëpp la mhm. ñi ngi ñoom ñi ngi fépp ñi nga xamante ñoom ñooy les prédateurs li nga xamante ne moom mooy les contenus yi nga xamante ñoom waruñ cee teg bët ñoom ndaw ñooñu nga xamante ni euh, na leen yàq nga expliquer leen li ak liw ak lii fii nga war a yem ak su si nekk fa nga war a yem lan mooy contenu yi nga xamante war nga ko suivre waroo ko suivre ñan nga war a waxal ñan nga war a tawxal yan message nga war a répondre ak yan nga war a répondre ak loo jot si message nga ñëw wan ko mhm. parce que mu am benn culture de confiance boo xamante ni ndaw eh, am na message yoo xam ne boo ko jotee automatiquement da la koy wan yow parent bi donc là tu sauras ban euh, disposition ngay jël ngir mën ko gën a mën protéger au-delà de ça yaa euh, ni ngay paramétrer li nga xamante ne moom mooy compte bi mhm. bu fekkee ni téléchargé na ko ba commencé ko utiliser yow mun nga paramétrer son compte boo paramétrer compte bi nag ça te permet nga réduire li nga xamante ne ñoom ñooy ñi koy gis parce que euh, par défaut compte bi compte public la képp koo xamante ni mi ngi si TikTok mën na si accéder. c'est-à-dire mën na ko suivre mun na ko euh, commenter mën na ko envoyer message direct maanaam un message privé yoo xamante ñoom ñaar mën nañu entrer en a waxtaan mais yow euh, si say euh, donc si boo duggee si paramètre bi di nga ko mën a limiter nombre ñi nga xamante ne ñoom ñooy utilisateurs yi nga xamante ne ñoo koy gis mën nga ko def compte privé boo xamante ne yaa ak ses amis ñooy gis li nga xamante moom lay partagé yaa ak la famille ñi nga xamante ne ñoom ñooy ses proches ñoom ñooy gis li muy partagé mën ko commenter mën see waxtaan ak moom alors TikTok ak euh, bokk na si li tax gars yi euh, xale yi daal di koy utiliser euh, bëriwul tamit parents yi boo nee Facebook parent yi presque ñoom ñëpp a ngi fa. Mhm. boo nee. WhatsApp mm, WhatsApp. Mhm. ñoom ñëpp a fa. Mhm. donc dañ ko déserter un peu. pour Instagram et li nga xamante moom mooy TikTok. donc ba tey moo tax TikTok déjà en ce moment mooy nekk derrière Instagram ci nombre de de de de vues yi nombre de partage yi ak nombre d'utilisation yi. donc te. quatre ans la def je l'ai dit tout à donc muy loo xamante ni gaaw na gaawaay boo xamante ni c'est extraordinaire jël seen ay matuwaay dafa dafa jot boo demee ci ci ci euh, ci paramètre bi mhm. pour euh, li nga xamante moom mooy euh, protection bi nga xamante ni moom ngay def ci ci ci ndaw ñi mhm. donc benn benn benn benn astuce boo xamante ni mën nga ko def pour rendre compte am mhm. li nga xam moom mooy privé interdire ñi nga xamante ni ñoom ñooy yeneen internautes yi nga xamante ni ils sont mal intentionnés ñu mën ko euh, contacter directement pour waxtaan ak ñoom parce que si étude bi nga xamante ni le roi de rats def na ko on voit des des gens yoo xamante ni dañuy demande ay ay ay ndaw ay xale yu jigéen yoo xamante ni euh, onze treize quatorze ans la ñu am des photos nues donc pour ñu envoyer leen ko donc c' est des yoo xamante ni y a des risques yoo xamante ni mi ngi si et surtout que lu ñu lu ñuy télécharger la man mi moo duggee sa mooy vidéo yi nga partagé. ni ma koy utiliser xamoo ko li ma koy doyee xamoo ko. Mm. donc c' est des yoo xamante ni euh, c' est à éviter certes y' beaucoup de de de de donc mm. alors boo demee par exemple boo demee paramètre nga dugg paramètre de confidentialité. donc paramètre d' abord dem paramètre de confidentialité foofu am na ay options yoo xamante ni bëri na mën na la permettre nga limiter euh, casse bi maanaam li nga xamante moom mooy danger yi nga daal di koy limiter au maximum mën nga ko autoriser euh, les autres par exemple am na fu ñu bind autoriser les autres à Mhm. foo xam da nga koy désactiver xamante ni ñi nga xam ne mooy ñi nga xam bëggoo ñu gis la wala bëggoo ñu suivre li nga xamante moom mooy sa sa sa actualité mhm. duñ ko suivre duñ accéder si nga xam ne moom mooy say vidéo ba koy mën a partager wala ba si mën sax ab euh, def ab euh, benn commentaire en plus dina permettre dootuñ mën télécharger say vidéo am nga benn protection supplémentaire hormis ñi nga xamante ne ñoom nga ko autorisé parce que yow yaay autorisé en ce moment là ne ñoom ñoo am accéder euh, si si sa contenu yi mm. euh, ça aussi aussi nga envoyé ñu mën la envoyer des messages directs parce que c'est facile de contacter quelqu'un via TikTok boo duggee gis vidéo yi parce que euh, en ce moment la je vais il beaucoup de par exemple boo duggee beaucoup de séries yoo xam ne ñooy daw Sénégal mm-hmm. li fii kii son ñu si ëpp contact fi ñu leen fi leen gisee Instagram TikTok. li film yi ñuy gis Sénégal mhm. genn wàll gi yëpp. sa contact day nekk la ci soo bu ma duggee si application bi. Mhm. fekk la fa sa sa sa sa profil. Mhm. mën naa la envoyé message directement bu ma la envoyé message si profil bi. foofu la ñuy jëlee contact ma ak donc y' a beaucoup de filles yoo xamante donc ça mën na am ay avantages moo tax ma ne ay avantages yoo xamante ni ça t'ouvre des portes mhm. professionnelles am na ci donc mooy yoolu mooy avantage yoo nga xamante moom moo ko taxoon judd mais yaa naa kii profite si faay bu ndaw boobu ñu bàyyi nga xamante ni ki nga xam moom mooy constructeur bi mënu koo nëbb parce que am na nga xamante ni moom euh, lu mu protéger protéger mënu faa egg parce que ki utilisateur bi rek moom moo mën a def euh, paramètre de confidentialité boobu daal di koy euh, tëj carrément ci li nga xamante ni moom mooy euh, ñeneen alors mën nga def tamit fi nga xamante ni mooy limiter l' apparition des vidéos qui peuvent ne pas être adaptées à tous les publics parce que am na vidéo yoo xamante ni tu le fais mais c' est pas pour tout le monde y a des vidéos que tu fais pour toi-même y a des yoo xam ne tu veux que sa ñi nga gis say xarit ami rek voilà donc ah nga ci am ay amis comme ni ngay amee amis Facebook ak Instagram donc euh, mën naa la choisir yow. Mhm. mbay yow rek yaa ngi par exemple. Mhm. c'est possible je peux le faire dama koy paramétrer yow rek yaa ko gis yow rek yaa mën a euh, commenter. Mhm. yow rek yaa ma mën a envoyer message et c'est ce nga xamante moom mooy li important. alors aussi on prendre rendre euh, ne terminer peut-être. li nga xamante ne moom mooy euh, compte bi privé parce que. wax naa ko au début compte bi par défaut public la. Mhm. tout le monde peut y accéder. Mhm. tout le monde peut accéder au contenu tout le monde peut commenter tout le problème bi mooy course like yooyu. Mhm. ngir am des milliers de milliers de like moom moo tax gars yi di euh, rey seen bopp moo tax xale yu jigéen yi def yenn yi nga xamante ni. mooy yenn colin yi yenn teg ci obscène yi nga xamante ni ñu ngi koy gis ci ci TikTok et. saa su ne day gën a graaw saa su ne day gën a vulgaire saa su ne ah. euh, day gën a format bi daal changé na léegi complètement <laughs> et d'où là ma ma ma question li nga xamante ne moom mooy euh, li ma njëkkoon posé au début mhm. sànq si introduction bi jot na est-ce que jotul mhm. ñu interdire ko adolescent yi mhm. donc je moom yaa xam réponse li nga xamante ne moom mooy li fi nekk les dangers les avantages bu fekkee ne da nga koy interdire en un certain âge moi je suis d'accord pour jusqu'à treize ans interdit pour l'interdiction au-delà interdiction bi day jafe mais protection ngay def accompagnement ngay def ak ndaw bi ak ndax te accompagner ko yomb na parce que da ngay paramétrer di nga xamante ne mooy compte am euh, a protéger mais aussi ne moom mooy contenu bi parce que y a des vidéos yoo xamante euh, du yoon na mm-hmm. Mm-hmm. am na am na solo euh, li nga wax rek ndax jotul ñu interdire adolescents yi li nga xamante ni mooy mooy TikTok du rek mais yeneen ni application mais man je dirais pour pour rek que ni parents yi ci boppam euh, surtout fii Sénégal ñoo war a bàyyi di teel a jox seeni doom yi ay téléphone man moom loolu chaque jour dama koy ñaawlu ay xale yu ndaw nga jël ay téléphone ay tableta yu yu kenn xamul di leen di leen ko jox te doo du am benn suivi doo leen contrôler doo xam lan la ñuy def ci seen smartphone yi loolu bu xale bi bu ko si dara dalee je pense que yow parent bi yow yaay responsable ci li nga xamante ni moom moom moom moo am alors Assane lii moom bëggoon nañ see indi yaatal bu bu bu bëree bëri bëri ah euh, peut-être bu mënee nekk prochaine fois ñu